sul toog fi toogaayam di ko nuyu di ko ziyaare di ko jottali ziyaare mbooleem seen taalibe yi nekk ci réew mi yëpp ak jullit yi nekk ci àddina bi yépp di ziyaare suñu bokk jullit yépp ndax tey jii day feetu jullit boo xam ne bi jullit yépp ñoo bokk kon ñoo ngi leen di ndokkeel di leen ziyaare di leen balu ak di ñaan ñu bal ñu ak di leen bal ak di nuyu kilifa yi nga xam ni ñoo nekk ci réew mi di kilifa aada di kilifa diine di jiital ci kilifa aada ki borom réew mi ñuy le président de la république Macky sàll di ko gërëm di ko sant di sant mboolem seen gouvernement bi yëpp ñi nga xam ni ñoo ngi ànd ci liggéey bi nga xam ni ñoo ngi koy liggéeyal Sénégal di nuyu suñu mbokk yi nga xam ni sax bokk ñoom ñoom diine te ñu bokk réew mi bokk àddina bi di leen ñaanal ñoom it jàmm ndaxte bu ñu amee jàmm ñoomit ñu ñun ñëpp ñu am jàmm tey ñaan yàlla nii nga xamee ni bi jullee nañ ko ren daan ko jullee at yi weesu yàlla ci mbaaxam ak kattanam mu may ñu ñu jullee ko at yi ci kanam yu bare bare bare bare bare te mu ànd ak jàmm ànd ak dal yàlla def jàmm ci réewu àddina yépp yàlla may doomu aadama yépp jàmm rawatina jullit yi di ñaan yàlla mi nga xam ne tamit dara tëwu ko mi nga xam ni lépp lu am ci àddina dafa ko dafa am ci kattanam li nga xam ni mooy li wër àddina bi te jaaxal doomu aadama yépp muy jàngoro ji nga xam ni mi ngi wër te amul benn dëkk boo xam ne bii eggu fa mm-hmm. san ci mbaaxam ak kattanam mu yërëm ñu teggil ñu ko te mu bañ a dalati kenn kenn bañ cee loru te loolu it ñoo ngi koy ñaan suñu borom mi nga xam ni moom lu mu lu mu dogal mu am di ko jaarale ci jaamam bi nga xam ne muy cheikhul xadim xadimu rasul mu dem ca sang bu tedd ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy toroxlu di ñaan san borom yàlla nañ ko yàlla teggil yàlla na ko yàlla teggi ci àddina bi yëpp ba àddina bi ñëpp dellu ci seen sago dellu tamit ci seeni i yitte ñi nga xam ne loru nañ ci ñu ñaan san borom mu yërëm leen ñun ñu fi desandi san borom dimbali ñu tàggale moom yàggal ñu fi ñu di ko jaamu ni ko imaam waxe rek ñun ñëpp nañ tuub ndaxte bu fekkee ni am na remède mooy tuub Ah, li li nga xam ni mooy mooy moo am mooy mooy tuub nañuy tuub ndaxte tuub bu fekkee ni bii am na am na benn médicament boo xam ne bii moo ay ci jàngoro yi mooy tuub dellu ci yàlla ku ci nekk buñ la nee tuubal ku ne xam nga fi nga toll sa diggante ak sa borom mu tàmbalee ko ci sama jëmm ji di ñaan ñëpp ñun ñëpp nañ bokk dellu ci yàlla tuubal yàlla toroxlu bu ko defee sans borom yërëm ñu jéggal ñu loolu mooy li nga xam ni moom la imaam wax te it Serigne wax na ko nee na benn saafara am ci jàngoro yëpp mooy tuubal yàlla dellu ci yàlla kon bu ñu delloo ci yàlla torox lu tuub bu ko defee sans borom dimbali ñoo ngi koy ñoo ngi ñoo ngi ci woo suñu bopp di ci woo ñëpp ñi ñu ko sañ a wax nañu àndandoo tuubal sans borom ndaxte yàlla yërëm ñu jéggal et di gërëm ñëpp nag di gërëm di gërëm di gërëm autorités yi yi nga xam ne ñoo ñu jàppale ci liggéey bi ba liggéey bi mel nii muy li ko tàmbalee ci président de la république ak jëwriñam yëpp ak le ministre de l'intérieur bi nga xam ni wax dëgg yàlla moom mi nga xam ni moo yore lieu de culture yi jàppale ñu ñu jàppale goo xam ne gii te li muy def lépp lépp lépp mi ngi koy defee ci dooley président de la république ak ndigalam kon ñoo ngi koy koy gërëm di ko sant di ko seereel président de la république di ko seereel sëriñ bi di ko seereel jullit yëpp. di sant ñi nga xam ne ñoo bokk liggéey bi fii ci Masalikul naan tàmbalee ci ilimaan ji nga xam ne ji ñoom moo fi nekk ak ñi topp ci moom ak mboolem seen njaboot gi fi nekk yëpp ñëpp di yëngu ak biir diiwaan bi nga xam ne tamit dama fi nekk ak ñi nga xam ne sama bokki taalibe lañu nekk fi di fi xaar ndigalu sëriñ bi te di ko jëfee. Mm-hmm. ñoo ngi gërëm ñëpp nag service de l'ordre beeg yëpp di gërëm tamit yéen ñii nga xam ne yéenay tasaare xabaar yi te wax dëgg yàlla waxtu Masaalikul Jinaan événement am fi ngeen ñëw fii couvrir ko ànd ak ñun kon ñun mënuñu leen fay yàlla mi mën a fay yàlla na leen fay. ñoo ngi leen di gërëm te da leen ñaanal yàlla seen liggéey bi ngeen di liggéey te mu nekk loo xam ne lii. liggéey gënu ko noble liggéey gënu koo gënu koo am solo mhm. ndaxte communication dañoo toll ci ère communication te yéen yéen a yor communication kon yéen it kuy ñaanal war na leen a ñaanal ndaxte bari na lu bari loo xam ni amul te muy jàmmi doomu aadama yi alerte bi ngeen di def ak taxaw di xool lu jaadoog lu jaadut moo tax lu bari loo xam ni lu warul am du am euh. kon yéen ku ñaanal réew mi jàmm war na leen a ñaanal jàmm ndaxte yéen ay agent d'alerte ngeen yoo xam ne yi wax dëgg yàlla ñun de ñoo ngi leen di ñaanal fu ñu toll li ngeen bëgg yàlla na leen ko yàlla defal jëriñ sànq junj nga ko ginnaaw liggéey bi ci Masalikul Jinaan ñu gis ne que ne euh, lépp lu ñeel li kër docteur santaane ci la jamono daal nay am ci euh, jumaa ji liggéey bi nu mu demee ak itam ni ngeen def ba bëgg euh, euh, euh, ñi fi ñëw respecter mesures barrières yi. waaw mais yéen a ko gisandoo seen bopp. gis nga bi ñuy dugg ci jumaa ji ñëpp a rang. Mm-hmm. ku ci nekk boo amul masque ñu jox la masque. Mm-hmm. koo xam ni kii ñëw nga dinañ la jox gel nga laal ko. Mm-hmm. nee na ñun nañu bàyyee joxante loxo bi tey wax asalaamaaleykum asalaamaaleykum doy na ci nuyoo. boo duggee ci bërëb fekk fa ñu bari mun a jox ñëpp loxo parce que boo joxee kii loxo jël ko joxaat ko keneen la ne ca def nga ko ci kii. da ngay wax asalaamualeykum mooy nuyoo jullit ñu ne la wa aleykum salaam loolu doy na ci nuyoo bu ko defee ñii dugg fii ñëpp gis ngeen jox nañ leen masque jox nañ leen gel ñu raxas seen loxo tey def na ab yaatu li ci des rek mooy euh, euh, li nga xam ni boroom xam-xam yi wax nañ ko te àddina xam-xam a koy doxal ndaxte xam-xam yàlla moo wàcce xam-xam xam-xam jógewul ci nit mm-hmm. xam-xam yàlla mooy joxe xam mm-hmm. yàlla mi joxe xam-xam ba ñu mën a gëstu di gëstu di wax ni wax dëgg yàlla lii la ñu war a def pour moytu lii wala lii bañ ñoo dal loolu santaane la boo xam ne ñun ñëpp ci war a tënku ndaxte boo nee duma ma ñàkku te bi nga ganee àddina ñu ñàkk la bañ lay ñàkk doo nee woon du ma ñàkku bañ lay ñàkk xam nga lañ lañ la ñàkk nga nekk élève dem ci école yi ñu lay ñàkk nga bëgg a dem tukki ñu ñàkk la nga feebar dem ci docteur yi ñu lay perfuser di la ñàkk te dooni bu leen ma defal bii garab bokk docteur yi ñëpp ndaxte ñëpp mënuñoo bokk juum bu ñëpp maasee ni nag ñàkk yi vaccin yi mooy li nga xam ni mooy li gën ci ñun mm-hmm. du ñu forcer kenn waaye li gën mm-hmm. ñu def ko boo ko defee yàlla mi nga xam ne nag moo ciy doxale ak yërmandeem doxale ko ci daal di fi dindi jàngoro ji